Alioune Badara Mbuub ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. waaw maa ngi fay mi FM di kontaan trop euh, ci waxtaan bi. di nuyu aussi seen auditeurs yëpp. voilà may fàttali euh, suñu auditeurs yi ne euh, jamono ji ñuy waxtaan ak euh, yow kenn ci yéen muy Guy Marius Sagna mu fas yéene jàkkaarloog juge flagrant délit alxamis gi moom ñu ngi koy toppee tey ji diffusion de fausses nouvelles ñenn ñi jàpp ne waxul lu dul xalaatam tey yow ndax ànd nga ci. waaw ñu ngi lay jaajëfal di wax aussi ci question boobu il faut que rek ñu rappeler Guy Marius Sagna li ñu ko jàppee. ndaxte dafa demoon ci dëkk bu ñuy wax Kunkande demoon ci ci ay population yoo xam ne ñoo woon waa FRAPP ndaxte dañoo jëloon lu bëri ci seeni suuf lu ëpp junni ci ay hectares jox ko benn nit ñoom nag ñu taxawoon ànd ci ak waa FRAPP ci foofu la ñu jàppee Guy Marius Sagna yóbbu ko fi nga xam ne mooy Vélingara yóbbu ko Tambacounda waa digg nag ñëw jël si ko indi ko Dakar jébal ko procureur mu mel ni moom benn yóbbante la woon boo xam ni dañ ko tegoon ci oto yi pour jox ko procureur loolu nag li tax ñu jàpp Guy Marius Sagna mooy dafa am benn post bu mu def Facebook di jàppale benn doomu Sénégal boo xam ni dafa yëkkati woon ay kàddu mm-hmm. ni gendarmerie bi nekk fële ci dëkku Farba ñoom dañuy jàppale nag kii di Farba Ngom ndax li mu leen digal dañuy def te généraux yi fi nekk waruñu accepté loolu ci ci poste boobu tamit ñu jaajëfal gendarme yi nga xam ni am nañu taxawaay ba Sénégal rek ñor leen mm-hmm. loolu Guy Marius Sagna wax nag moom la ñun ñëpp wax moom la sénégalais yi di wax mooy que suñu force de sécurité et de défense yi dañoo war a nekk des forces républicaines waruñu far fenn lu dul ci fa askanu Sénégal léegi nag bu ko Guy Marius Sagna waxee ñu jàpp ko ci ñun dañoo jàpp ni loolu délit d'opinion la waaye loolu prof ndoll la rek ñëpp xam nañ ni Guy Marius Sagna dafay déranger dafay déranger ndax am na échéance yu jëm yu am solo muy ay élection bëgguñu mu fekk ko ci biti mhm. donc il faut que ñu nëbb ko jant bi te kii def loolu muy procureur de la république ñun de dañoo seetlu mhm. bu fekkee ni kenn ku bokk ci pouvoir bi bu defee njombe moom day waxuñu la Macky Sall lim wax ne day teg ku dëm coom-coom ci dossiers yi. Mhm. procureur boobu day toog ci dossiers yi bañ cee jug gis nañu kaaw Bougazelli ñëpp gis nañ vidéo bi ñu jàpp ko la main dans le sac ci ay faux billets te gis nañu ba mu paree dafa wër télé yi ak rajo yi dinaan gendarme yi dañ ko doon laaj cinquante millions kenn jàpp ko mm-hmm. gis nañu aussi ñi nga xam ni ñoom ñooy député yi ñu tudd ci wàllu passeport diplomatique mm-hmm. nga xam ni tey sénégalais yépp rus nañu ndax président Macky Sall bi mu ñëwee dafa jëloon passeport diplomatique yooyu nangu ko ci ay kilifa diine tey nag député yooyu ñooy jël ay passeport diplomatique am na sax ñu naan dañ cee def ay mariage góor jigéen yoo xam ni dañ ciy jox ay nit pour ñu dem voyage mm-hmm. mu doon lu ñaaw mais léegi ba léegi dégguñu procureur mu autosaisiru mm-hmm. te bu fekkee ni nit la ku bokk ci activiste yi wala mu doon opposant dañuy gis taxawaay bi ci procureur di am mu doon taxawaay bu ñaaw di gis taxawaay bi nga xam ni moom la ci euh, assemblée nationale di am mu doon fast track lever immunité parlementaire loolu nag ñun dañu jàpp ni Sénégal tey dañoo am ñaari citoyen citoyen yi nga xam ni boo bokkee ci APR loo mën a def ci njombe yow amul benn problème parti bi dina la aar président dina la aar ndaxte moom moo yow moom moo yor justice bi moom moo koy digal mu def waaye nag boo nekkee ci citoyen bés bo xam ne nii juum nga wala bés boo xam ne nii ñoom soxla nañ la te bëgg nañ laa compte dinañ activer li nga xam ni moom mooy justice ñu jàpp la tëj la ci kaso bi nëbb la jant bi say mbokk sonn. loolu nag kon dafa am par parloo ci wàllum yoon. mais loolu dafa leer li leer mooy euh, ba léegi gisagoo benn opposant boo xam ni wax nañ ci moom coow te justice jugul mais chaque jour nga dégg coow loo xam ni. ñoom ñi yor pouvoir bi ñoo ko yor te du mujj fenn quatre-vingt-quatorze jaar na fi affaire Alioune Sall jaar na fi bu ñuy lim tey du ñu fi jóge donc loolu nag ci dëkk bu amee justice nga xam ne moo ñu war ate ñu gis ni dafa dafa féete boor loolu li muy mujj indi moom mooy fajal sa bopp te loolu baaxul ci dëkk mhm. en tout cas lii nag lenn rek la ñun bi ñu jógee ci mois de mars kilifa diine yépp ñaan ñëpp wax ñun ñu jël manifestation yi boole lu ñu neex ak lu ñu naqari ñu jox sens médiation bi nga xam ne ni kilifa yi yëkkati woon nañ ko pour que Sénégal mën a dal mais boobu ba léegi dañoo seetlu ñun ba ñu wootee dal président Macky Sall dafa génn ni li fi amoon doot fi amati du ñu jàpp du ñu tëj di ñu dóor léegi nag am na fu muy yem bu boobaa nag ñun dinañ jël suñu responsabilité te la fa xewoon mars bu fekkee ni libéré wuñu Guy Marius Sagna dina fi xewaat dina fi xewaat te bu xewaatee responsabilité bi président Macky Sall la moo tax ñuy woo kilifa diine yi ñu wax ak le président Macky Sall ni dëkk bi daf ko war a yor anin bu sel ba pare dem bàyyi ko fi bàyyi bu sel. moom gi Guy Marius alxamis gi la fas yéene jàkkaarloog euh, kii di juge bi euh, yéen seen taxawaay euh, lan ngeen ci fa yéene def. waaw xam nga Guy Marius Sagna xam nañu ni moom jàmbaarteem ñëpp xam nañ ñu bëgg réewam fa mu toog nekk fa askanu Sénégal moo ko fa yóbbu amul benn rek tey ci lu justice mën a décider mais ñun li ñuy wax mooy peuple Sénégal moom moo nekk procès par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngal yoonu Sénégal procès bi du procès Guy Marius Sagna waaye procès droit la procès dëgg la te askan bi ñoom ñoo war a jël loolu xam ni jour boobu ñoom ñëpp la ñuy jugé moo tax ñu war a mobiliser wu ñëw fees fa dell ba Guy Marius Sagna bu gisee dina xam ni moom la mu doon xeex pour askanam askanam yëg na ko waaye aussi ñu taxaw ba yoon tey ñu xam ni justice dañ koy rendre au nom du peuple dañ koy rendre ci turu askan dañ koy rendre ci turu population waaye duñ ko rendre duñ ko joxe ci turu clan duñ ko joxe ci par parloo loolu taxawaay boobu ñu ngi ciy woo képp koo xam ne citoyen nga jeudi incha allah alxames bu huit jote ñu dem ci salle une boo xam ni fa la ñuy ndara jugé Guy mari Sagna pour ñu apporter ko ñun suñu soutien. sànq nga mel ni da nga doon yëkkati ay kàddu naan xoxatal tey euh, wax nga ko Guy Marius la démb kilifa ak Simon ndax fooguñu foogu leen ne euh, li ni mel dina tax mouvement activiste jeex ci mim réew. xam nga mouvement citoyen yi ñoom mënuñoo jeexal tey li ñu am en terme de ressources. ndaxte ñun suñu liggéey mi njëkkoon a démarré ñu nga xam ni mooy leadership collectif maanaam kuréel yi ñu nekk dinañ fa créer ay nit yoo xam ne nit ñooñu bu ci kenn tey justice téye ko ñeneen ñi dinañ continuer xeex boobu moo tax boo demee ci Y'en a marre tey ñoom ñi ngi continuer xeex ba boo ñëwee ci ñun FRAPP aussi am nañu assez de ressources humaines même bu fekkee ne Guy Marius Sagna ñëpp xammee nañ ko ci xeex bi waaye am nañu tey ñu capable ñoo xam ni moom bés bu nekkee ci prison dinañ continuer xeex bi ba mu génn foofu après ñu wéyal xeex bi moo tax tey amul kenn koo xam ne ni mën rey tey lii xam ne moom mooy dynamique gu changement bi nga xam ni moo dara am tey fii ci Sénégal léegi nag li ñuy wax état du Sénégal mooy que ñoom ñoom ñooy choisir ndax lii def nañ ko fi defaat ko fi ba ci mois de mars mu jur loo xam ni tey jëyee ba af adduna bi yëpp di ko wax est-ce que ñoom dañuy choisiraat defaat même sos pour amaat pour attendre tey ay résultat yu bokkul déedéet résultat bi li mu mën a indi rek moom mooy confrontation mooy pëccëxoo mooy ay nit tey peut-être sax dem ba ñàkk ci seen bakkan te loolu jaru ko ñi ngi wax président Macky Sall que ni ñun dëkk bi amuñu beneen passeport amuñu beneen euh, nationalité Sénégal la am diñ koy woo aussi lépp loo xam ne nii tey war na koo def pour que dëkk bi dal mooy mu libéré ñii nga xam ni mooy les camarades de Y'en a marre aussi Guy Marius Sagna ba pare nekk jaamu askan bi pour que Sénégal mën a dal waaye loolu su dalul amul lenn lu mën a freiné tey élan mouvement yi nga xam ne ñu ngi jug di xeex ndax lii découragé wu ñu daf ñu gën a renforcer dafa ñu gën a ñaax dafa ñu gën a wane ni ñoom fi mu toll dañoo tiit ñoom fi mu toll ba tey fii ak deux mille vingt quatre nelawatuñu moo tax nag ñun aussi du tëj moo ñuy découragé du moo ñuy découragé du xoqatal moo ñuy découragé ndaxte li ñuy xeex suñu droit la te jàpp nañ ni kenn mënuñu ko xañ. Alioune Badara waxtaanee jamono ji ci sommet boobu nga xam ne euh, moo fas yéene am euh, fële ca Montpellier le 8 octobre foofu ca France tey jii ñu gis ne euh, sommet boobu ñu duppee France Afrique ñii di njiitu réew réewu Afrique atum ren duñ leen ci gis. ñañ fay gis nag mooy ndaw yi kit yeneen euh, association tey ay intellectuel wax ne euh, li ni sax ñoom li leen ci gën a metti mooy chef d'état yi ñu écarté yéen euh, nan ngeen jàngate justement mise à l'écart nguur yooyu waaw ñun jàpp ñu ni dañoo mettre à l'écart ñii ni président yi ndaxte président yooyu ñu ci bëri France moo leen di digal ñu def moo leen yi wax ñu bàyyi te tey Euh, jàpp nañu ne lépp lu am aussi ñoom ak France googu réeroowuñu ñoom ñoo waxtaan ba bëgg a tëgg tëggee ndaje moomu noonu il faut nag ñu dellu ci ginnaaw pour xam lan moo sabab tey France amat démarche bi li ko sabab mooy ñëpp gis nañu ni Emmanuel Macron bu mu ñëwee lii nga xam ni moom mooy euh, mbeddu Afrique yi dañoo gën taral li wax France na génn ci suñu économie na génn ci suñu politique na génn ci lépp loo xam ne nii tey ñun Afrique ñoo ko war a gérer suñu bopp ñu koy wax souveraineté ci boobu euh, ñu gis moom aussi am ñu ko xelal ni ko nag il faut que nga changer stratégie ba nga xam ni relation bi France amoon mu doon relation bu brutale ñëw foqar ni bi yoon ñëw noo taxawee wane ni vraiment ñun dañoo ñëw pour continuer li nga xam ne ni moom moo doon suñu partenariat gis nañ ko ci éco bi ñu gis ni léegi franc CFA bi ñëpp xamoon nañu rejeté nañ ko ñu indiwaat beneen éco def ci ay réformes tout simplement pour continuer li nga xam ni moom mooy seen mémise ci suñu euh, xaalis tey jii nag gisaat nañ ko aussi dem na fi université bu Euh, fële Burkina Faso di waxtaan ak jeunesse africaine yi gis nañu ko aussi bi yoon mu ni day rencontrer société civile africaine mais boobu da ngay xool ni dafa dem sukkandiku ci ay intellectuels yoo xam ne tey mën na leen a manipuler pour que rek ñu def ndaje moomu mu ni waaw léegi ñun juboo nañu suñu biir waa Afrique juboo nañu suñu biir mais société civile boobu muy wax ak intellectuels yi ñooñu duñu baatu Afrique baatu Afrique tey mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci terrain bi di xeex ñi nga xam ni ñoom la jaral tey ñu ñàkk seen bakkan ñu nga xam ni ñoom la jaral tey ñu leen di tëj ci prison yi ñi nga xam ni tey Afrique moom boppam jaral na leen tey li dal orom Omar Blondin Diop euh, dal leen mm-hmm. moo tax ci loolu am na ñun FRAPP bokk nañu ci benn kuréel boo xam ni am na ay mouvement yu mag yu ci bokk lu mel ni ANC bu Nelson Mandela urgence panafricaniste bu Kémi Seba Pastef aussi bu Ousmane Sonko ak yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen africain yoo xam ni bokk nañ ci pour wax ni ñun gisuñu suñu bopp ci ndaje boobu et aussi am na ay intellectuels africains yu mel ne ay Ndongo Samba Sylla yu mel ne ay Boubacar Boris Diop bind nañ ci wax ni mbooloo moomu ñu dara teg loolu du rek naxaate rek la pour rek jéem a indiwaat beneen xeetu nooteel boo xam ni dañu ñuy gën a gëmloo que ni ah ñoom de dañoo ñëw pour pour ñëw saafantoog ñun moo tax nag ñuy woo ci fan yi ci un peu partout dans le monde mais surtout ci diaspora ay manifestation yoo xam dinañ ko def ay panel yoo xam ne dinañ ko def pour wax ni ñun ànduñu ci loolu ndaxte Afrique ñii nga yor seen baat tey moom mooy ñi nga xam ni gëm nañu xeex bi waaye du ñi nga xam ni dañ leen a recruter Élysée moo leen recruter ñuy conseiller Macron pour mu am beneen démarche di mun di ñu wan ni yéen ñun ay xarit lañu defe naa ni loolu ñun duñ ci mën a ànd nax yi 1960 ba léegi nii lañ ñuy naxe Afrique nag tey dafa am doom yoo xam ni jàng nañu xam nañu li ñu bëgg mën nañu jël seen i responsabilité jël nañu seen responsabilité tey et suñu responsabilité mooy France génn ci lépp loo xam ne nii ñun domaine de souveraineté la jële fi seen base française yi dindi monnaie africaine ba nga xam ni bu ñuy toog di négocier moom dañuy négocier par rapport ak nawle ak nawle comme ni ñu négocier ak yeneen dëkk yi. kon daal yow jàppoon ne dañoo écarter chef d'État yow da ngaa gis ne ñoom xam nañ lépp lu xew euh, te it euh, ni mu ni Macron euh, jëlee décision jàkkaarloo face à face ak association yi du rek pour mën a defal boppam mission bi nga xam ne santoon na ko chef d'État yi. waaw bu ñuy fàttaliku danga nga Macron dajale woon na fi chef d'état yi. Mm. ni leen yéen ñii seen dëkk yi na ngeen wax ak ñeen mouvement yi nga xam ne dañuy jug di ŋàññi France ci relation yi ñu am ak yéen wala man ma jël samay responsabilité tey nag loolu suite logique la parce que moom jàpp nañ ni président yooyu mënatuñoo wax peut-être ak ñooñu waaye aussi président yi ñoom réerewuñu ndax décision bu ñu fa mën a jël muy arranger France Macron day tourné waat joxaat ko président yi pour que ñoom léegi bu ñëwee di ko appliquer ñoom ñu ni ah comme yéen kat yéen yéen a waxtaanoon ak waa France ba ñu ac ba ñu accepté ko kon aussi dañ koy mën a donc ñoom ñëpp tey muy président yi Afrique nga xam ne dañ leen di digal ñu def ñu sant leen ñu def ñoom ak France ñoo bokk benn mbuus ndaxte ñoom ay préfet lañu duñ ay président matuñu ko ndax bu matoon président tey duñu wax sax sommet France Afrique dañuy wax sommet Afrique France Afrique France mais tey si Afrique moom mooy dem di daje ak France loolu muy ñaar benn dëkk continent lam dajaloo dem di ko fekki donc loolu rek day wane que ni ñoom ci la ñu nekkoon moom la ñu nekkaat ba léegi maanaam néocolonialisme boobu moom la ñu bëgg indiwaat continuer waat ko mu doon une colonisation sur une autre forme ñun nag loolu la ñuy bañ moo tax ñu regroupé wu à travers n'est-ce une plateforme bu nekk au niveau de de de de de, de Paris de, de la diaspora ñu tuddee ko dynamique unitaire n'est-ce pas panafricaine donc kooku nag ñi ngi ciy xeex ci fan yi xam naa dinañu ci dégg. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax Alioune Badara Mboup. jërëjëf maa ngi leen di